asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube la chaîne des youtubeurs ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis ci YouTube vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof vidéo ñëwaat ci li nga xamante ni moom mooy euh, dindi réclamation content ID comme ni ngeen koy gisee ci vidéo yi ñetti vidéo yi benn bu si nekk tax moom dollar rouge dollar rouge lañ ko tuddoo sax dollar rouge en wala voilà euh, xam naa dañ koy def bi titre dollar rouge 2022 voilà incha allah Euh, boo xoolee YouTube dafa am tuuti ay changement yoo xam ne doon na ko si indi tuuti nag ci niñ koy defee moo changé moo tax ñu si defal vidéo muy nga dugal video léegi bi nga koy dugal nga def ci audio boo xamante ne audio bi nag mën na nekk lu ne mën na nekk way mën na nekk jàng alxuraan mën na nekk xasiida mën na et cetera et cetera en tout cas yow sa vidéo dugal nga ci benn son wala wax boo xamante ne dañ kaa protéger te ko ko protéger protection bi mu ko def mooy protection boo xamante ni maanaam moom ku dugal yëfam moom du la envoyé réclamation dinaa la supprimer sama yëf wala et cetera non non dafa ne YouTube man bañu ma ko utiliser sama yëf waaye ko utiliser sama yëf ci sa vidéo sa vidéo boobu man maa koy monétiser exemple boobu bu simple. vidéo bi mu ngi nekk une heure cinquante trois minutes quarante sept secondes film la léegi kii da ci dugal maanaam musique musique bi mu si dugal nag léegi musique bi xam mën na nekk sax trois minutes kese ci une de temps fii YouTube xam naa fi def te war nañ xëy na dinañ ko fur et à mesure ñu dem dinañ améliorer xëy na. ba nga xamante ne peut-être ngi monétisation bi daal ñoom neneen nu ñu ko tëralee léegi 3 minutes yooyu nga xam ne musique jàmbur nga jël te borom musique bi wax YouTube non man moom bul supprimer mais koy utiliser sa musique maa koy monétiser YouTube léegi yow vidéo bi da koy monétiser ci sa sa chaîne monétiser na même bu monétiser wul tamit nga dugal ko te chaîne boo xam amagul 1000 abonnés YouTube day monétiser vidéo bi su ko monétiser li ci vidéo bi di gagné ci monétisation ci AdSense su borom son bi la koy envoyé. loolu mooy content ID réclamation bi réclamation boo xam ne du la indil benn problème si wàllum YouTube tëj sa chaîne wala dara comprendre nga mais mën na la indil problème mu utilisation de su fekkee monétiser ko tam bëri sa chaîne YouTube gis da nga utiliser contenu jàmbur yu bëri bañ la monétiser soo monétiser di ko benn benn yi ñu ci am nii YouTube du ci def dara sa chaîne waane dafay jël xaalis bi ngay gagné ci vidéo yi mu concerné di ko verser borom son bi. comprendre leen j'espère que leer na loolu mooy réclamation yi ngay gis kontaan di te ay musique mu ëpp lu mu koy indi wala ay alxuraan wala ay xasida et cetera voilà. léegi nag su amee ci sa vidéo nga bëgg ko dindi YouTube am na tuuti changement bu mu ci def voilà fi ngay ñëw ci réclame boo tegee ci réclamation mun la nga afficher détails yi nga cliquer afficher détails yi soo cliquer détails yi bu affiché woo gis nga daf lay defal nii bu verte bi mooy lan mun la sans conséquence maanaam du benn problème bu ñu la ci indil parce que déjà borom moo autorisé ni ñu mën ko utiliser l'essentiel mooy monétiser boo xoolee séquence bu ndaw la musique bi con la concerné ci ci vidéo muy ban muy fii gis nga lu weex lu ndaw li mu def fii waaw boo xoolee détaillé nañu ko fii defal nañu tur son bi tur son bi moo ngi nii def na ñi nga xamante ni ñoo ko moom wax la mi ngi commencé maanaam fii vidéo bi demee ba une heure de temps cinquante et un minutes cinquante trois fa la commencé ba une heure de temps cinquante deux minutes ba fin bi kon temps bu tuuti la ci vidéo bi voilà léegi mu defal la euh, vidéo bi nag ji nga éligible monétisation parce que borom moo koy monétiser voilà léegi lu ñuy def nag dañ ko bëgg a dindi voilà fii lañuy ñuy trois points yi bu ñu fi cliquer YouTube dinañ jox ñetti option option bu njëkk bi mooy lan mooy ñeenti option sa laay wax la <laughs> ñetti mooy po yi ñu intéressé ak benn bi ci suuf bu njëkk bi mooy lan muy nga couper segment couper segment mooy lan mooy maanaam partie bi nga xamante ni comme ni nga ko waxee sànq moo concerné lii lu ndaw li di feeñ nga dagg ko partie bi yëpp denc denc vidéo bi maanaam nga xam ne yow son bi fi mu commencé ba fi muy jeexee YouTube da koy dindi dindi mais nag bu koy dindi du dindi son bi dong de da boole ak vidéo bi partie boobu dagg ko mu deñ mu deñ 100 pour cent mais nag boo defee sa bu dee film la woon wala dara partie boobu day manqué suñu nit ki seetaan ba mu ñëw foofu day sotee day gis ni am na fi manqué loolu moo tax du option mooy nga dagg segment bi mais léeg-léeg am situation yoo xam ne il faut nga obligé def ko beneen bi si topp mooy nga remplacer le titre musical remplacer titre musical baax na moom mooy lan mooy nga cliquer fii nga dem ñetti yëpp après nañ leen ko wax dañuy expliquer mais comme vidéo bi am na ñetti euh, maanaam euh, vidéo yi ñu réclamé benn par benn dañ leen ko wan incha allah ñetti yëpp voilà. deuxième bi mooy nga remplace titre musical mooy nga de nga cliquer fii mu yóbbu la ci bibliothèque YouTube bu bibliothèque audio bu YouTube. nga choisir fa benn son son boobu ñëw tege ci suufu son bi ce qui fait son bi dootul valable son bu YouTube bi moom mooy feeñ su nit ñi di seetaan réclamation bi dañ. troisième bi mooy nga couper la son di titre waaw xam naa si bii la ñuy njëkk sax si vidéo bi après ñu won leen bi après ñëw won leen bi nga couper le son du titre mooy lan mooy maanaam. nga dindi dagg dagg son bi tege ci sa vidéo mu dindi la problème nga dagg ko moom dong dindi ko ci sa vidéo YouTube da ko ciy raxas dindi ko ci biir raxas bu am na option maanaam dagg boobu YouTube mi ngi koy doon améliorer depuis deux ans ñi ngi ciy liggéey ñoom pour gën ko améliorer ba nga xam ne su amatee lu mel nii dinañ mën a dindi musique bi kase kase kase si boppam wax ji nekkoon ci vidéo bi continuer des waaw loolu nag dafa xaw a difficile moo tax YouTube daanaka deux ans yëpp ñu ba ba cent cent parce que léeg dafa am euh, son bi nu muy jaxasoowee ak vidéo bi dafay naqaree dindi son bi bàyyi fa audio audio vidéo voilà beneen bi nga xam ne mooy quatrième bi mooy nga contester. te nag rarement la nit di contester lu mel nii am ci dëkk voilà muy lan muy son yi nga utiliser li si day nekk son wu boo contester mooy lan mooy bu fekkoon ni son bibliothèque YouTube 100 pour cent nga utiliser bu liir ba pare am ko ko réclamé mun ko contester yow boo defaree sa son boo xam ne tey nga nekk par exemple beatmaker nga créé sa son wu xam ne leer na lii yaa ko moom nga def ko ci sa vidéo am ko ko euh, revendiqué mun nga contester nga ndey preuve yi wane ni yaa ko moom su boobaa YouTube la ko delloo mais nag soo amul ay preuve yi wane ni yaa moom jarul contester léegi ñett yi nga xam nag dañuy dindee réclamation bi dañ leen ko bi si njëkk bi ñu commencé mooy bii couper le son du titre nga ñëw fii nga cliquer couper le son du titre soo couper le son du titre fii la lay indi mu indi la vidéo mu ngi nii partie bi mu concerne moo ngi nii su doon ay musique yu bëri yu si nekk yu am réclamation da lay defal ay partie ay partie voilà comprendre yu bokkul comme partie bu bule bi mu sélectionné da defal fii tuuti lu bleu defal la fii defal la fii ak guddaay beeg yooyu ci fin bi kase moo am bi affaire bi concerné moo tax gis nga bindal nañu fi mu concerné léegi mu bindal ñu fii ci ñaari option yi couper la totalité du son pendant la lecture di titre maanaam nga dagg ko dagg boo xamante ni maanaam son son wu ojo bi ànd ak bi nga def sa vidéo day dañaale wax ji nekk ci sa vidéo tam day dañaale ci partie bi mu concerné muy une minute cinquante et un cinquante deux secondes ba une minute cinquante deux cinquante cinq secondes à peu près une minute la comprendre nga voilà une minute yoo xamante ni. sa vidéo bu fa egsee image rek la nit ñi gis mais danaan tek du wax waaw daggaale nañ son bi daggaale audio vidéo bi voilà. léegi nag YouTube am na beneen bu mu indi ci suuf bii la ñuy travail te pareewul te moo gën a baax muy bêta bêta la nag mooy lu bêta boo ko déggee rek mu ko bëggee ñu ngi ciy continuer liggéey nañ ko mu dis woon ni mu nit ñi ko utiliser te donte pareegul bi mooy lan mooy na couper que le son du titre maanaam nga demande YouTube mu dindi musique boobu donc. bàyyil la fi sa vidéo bàyyil la fi wax ji nekk ci sa vidéo wate boobu moo gën a efficace mais nag dafa nekk bêta voilà mën na bañ a efficace léeg-léeg 100 pour cent mais bu efficace de toute façon tam YouTube dafay bàyyiwaat son bi demandé la nga demaat def ko voilà mais comme ñu ngi koy améliorer si kanam tuuti dina gën a baax léegi mais bii la ñuy choisir mu dindal ñu son bi dong dong voilà ñu cliquer fii voilà suñu cliquer fii léegi ñu def continuer couper le son ñu confirmer fii pour couper le son léegi xaar. bu ñu wonee tableau bi mu traitement en cours boo gisee modification de la vidéo en cours soxlawul nag ngay bàyyi nii sa ordinateur wala bàyyi nii passe bi di xaar mu traité ko ba mu jeex parce que vidéo bi une heure de temps la traitement bi mën na jël fi mu nekk nii six heures de temps <laughs> mais nag comme loolu ci biir YouTube ci biir serveur YouTube bi lay xewee yow bu mu yàq sa liggéey c'est très simple cliquer fii waaw parce que nga cliquer fii du si jotee dara ak loolu voilà boo bu ñu fii nga xool bii lañ jëloon di ko defar lu ñu bindal fii vérification. voilà vérification mi ngi ni nga ngi pour xool pour bu son bi dañee rek day normal comprendre nga bu ñëwee fii ji nga defal nañu su ma stegee day demee su ma dindee nga xool ko day def traitement di nga traitement SD. vidéo bi YouTube mi nga koy générer waat di ko convertir at pour convertir ko cent son bi convertir ko dindiwaale son bi su ko defee maam day nekk si euh, li nga xamante ne mooy chaîne bi 100 pour cent te son doo du ci am comprendre nga li mooy première méthode bi. léegi deuxième méthode bi ñu ñëw si ñu ñëw ci deuxième vidéo bi teg fii ñëw afficher les détails bu ñuy afficher les bu ñëwee ci vidéo bi gis nga bii moom ñetti son yu bokkul la vingt neuf minutes vingt cinq ba euh, trente minutes trente sept fii ci commencement bi la zéro heure zéro minute ba une minute trente quatre fii trente et cinquante cinq ba trente quatre cinquante cinq voilà gis nga léegi ñu cliquer mooy comme sànq ni la gis nga partie bii la partie bi partie bi léegi ñu cliquer fii. bu ñu cliqué fii xam nga ñoo ngi woon couper le son du titre ñu ñëw ci bii ci bésam beneen muy remplacer le titre musical. ñuy def dañuy jël musique YouTube teg ko ci kaw musique yi mu éliminer musique yi voilà ñu cliqué fii ci digg bi bu ñu léegi dafa ñuy demander pour bibliothèque YouTube bi la ñu war a utiliser pour teg ci ay ay son comprendre nga voilà léegi benn bu njëkk bi mi ngi nii comprendre nga voilà moo ngi teg euh, Alsoudias Sourate Youssouf léegi musique arabe yooyu xam ne dañuy lay jafe-jafe léegi euh, ñu xool ban musique lañ ciy war a teg musique bi 3 minutes la dina ko war a mën a couvrir non bii dafay tuuti du ko mën a couvrir dama supprimer ko jël musique bu gudd parce que xaw gudd tuuti quoi voilà hmm. xaw na gudd de musique gu Jazz Gaaja Geer yi ñoo ciy baax rek kon moom gudd na avantage mooy daa golden golden présent anam sax waaw mu ngi nii moom gudd na 17 minutes la quoi te son bu calme xaw a la ñu indi ko buñ koy indee terul ba léegi des na de tuuti son bi gudd na de xaar ñu indi beneen bu xaw a gudd 4 minutes bii ajouté ko léegi xam nga gis nga ci suuf la teg bu tegee suuf doo amati benn effet parce que bii tege na fii mu ñëw tegee ci suuf day des lii ba léegi léegi dañ koy déplacé dañ koy déplacé ñu ñëw teg ko nii voilà. gis nga ñu ko tegee nii rek gis nga ruusatul comprendre léegi nag am na lu fi am mun nga cliquer fii trois points yi boo cliquer trois points yi soo ko bëggee supprimer nga supprimer soo bëggee indi beneen nga indi beneen comprendre nga waaw fii trois points yi teg nañ golden president ba mu ñëw ba fii mais mu des lii partie bi mu dese bi ñu cliquer bii bii fii la ñëw tege toujours par défaut day ñëw tege fii soo cliquer beneen bi ñëw tege ci suuf exemple comprendre nga comme par exemple bu ñu cliquer waatoon bii ajouter gis nga fii la ñëw tege léegi bi suuf dañ ko bëgg supprimer comme ni ma la sax fii ngay cliquer supprimer ñi nga dem na bii nii bu tegee fii ci suufu golden bi ne tey dañoo tegaloo ñoom ñett ba léegi fii am na lu amul dara léegi dangay ngay teg nii ba teg ba quatre flèches yi génn nga xëcc ko glisser ko ba mu ñëw ba fii voilà ñu ko glisser ba mu ñëw ba fii cat bi sax mën nañ ko wàññi ba mu ñëw ba tolloog voilà fi cat bi léegi teg nañ euh, nii gis nga voilà léegi bu ñu tegee nii lu ñu def enregistrer ñu confirmer enregistrement bi ce qui fait bi musique gu bibliothèque YouTube bi moom mooy ñëw tege si voilà modification en cours voilà léegi ñu xool bu ñu doon dem ci deuxième bi gis nga day bañ lu tax parce que dafa nekk di traité li nga xamante ni moom mooy euh, vidéo bi voilà il faut traitement bi jeex su traitement bi jeexee nag nga gis ba léegi mu defal la mu defaatal la réclamation xamal ni dafa am son yu mu traité am yu mu bàyyi nga ñëw nga eggali comprendre ko mais war nañ la ni ngay defee boo fekkee da ngay teg son wu YouTube léegi nga tëj duñ ci toog di xaar traitement bi voilà mooy deuxième bi bii son YouTube lañ ci teg voilà. léegi ñu ñëw ci troisième bi fii ci suuf ñu ñëw teg réclamation afficher les détails bu ñu defee afficher les détails benn benn benn son kase la voilà ñu ñëw ñu cliquer fii afficher les détails ñu def couper le segment moo ci desoon li nga tuuti la mën nañ ko couper da nga bëgg a couper nag wax naa la toujours bi ci suuf option bi ci suuf moo gën a baax mu nga def ko priorité su fekkee disponible la ñëw si remplacer son te nga ñëw nag soo ko ñëw couper ku pes ak la ñuy def ci op ci option bi boo cliquer rek wax na la musique bi fi mu commencé fi mu yem jeex na li ngay def mooy continuer pour couper jeex na daal di confirmer waaw moom nii kese la jeex na nga xaar chargé na ko ne la mi ngi traitement amul benn modification boo mun def yëpp traitement bi jeexul voilà léegi lu ñu def ñu tëj voilà suñ tëjee boo xoolee ñetti vidéo yaa ngi gis nii ñetti vidéo yi voilà ñoom ñëpp di nga mi ngi vérification ñoom ñëpp gis nga ñi ngi bu ci jeex rek après dina la won su dañee 100 pour cent léegi dollar bi dina verte wala bu fekkee monétisation bi dafa dañ nga cliqué waat ko sélectionné monétiser voilà monétisation bi dañee dollar bi gris la lay defal comme xaar ñu won la fii nan lay mel pour nga xamale ko benn yoon rek bu génnee bañ la jaaxal voilà traitement yooyu xonk yi mën na jeex dollar bu rouge bi au lieu mu vert mu def nii dollar bu gris nii mais loolu du lu mooy tekki rek maanaam traitement bi jeex na mais monétisation bi activé wul yaa koy activé sa bopp da nga ñëw cliquer ko monétisation nga cliquer activé daal def enregistré voilà soo defee enregistré confirmé waat nii voilà jeex na su dee application mën na confirmation mën na la ko bañ laaj jeex na vidéo bi monétisé waat na dollar bu vert ça y est voilà ñett yi bu jeexee noonu la mën a su traité ba mu jeex tàkk ba pare nga gisaat benn continue rouge mooy comme bi nga xam dafa am ñetti réclamation su fekkee dafa traité benn bi kase bàyyi deuxième wala bàyyi troisième bi day continuer route il faut nga ñëw boobu tam nga defaat même opération voilà ni mooy ni nga xamante ni noonu la ko YouTube léegi defee tuuti ay changement ci li nga xam mooy dollar rouge ak li nga xam mooy content ID kon vidéo bi foofu lay yem j'espère que leer na bu amee ñoo si xam ne am na lu leerul ci noonu rek commentaire mi ngi fi euh, ñu bàyyi xel message whatsapp bi nag du ñu mën ñu ñuy envoyé message whatsapp ñëpp ñu leen di tontu ni ñu ko bëggee parce que loolu bu ñu ko defee du liggéey parce que message yi dafay bëri macha allah bu bëggee jël suñu temps bu ñu xëyee nekk di tontu message whatsapp ku ñëwaay message problème bu munti nekk ñu ñu taxaw ci li la expliquer ba mu leer ci yow ñu jàll ci keneen jàll ci keneen loolu bala ñuy jeexal ñëpp jant bi day sox te loolu bu ñu koy def chaque jour yaakaar naa bu weer bi dee waaw du ñu lu ñu fay sax suñu connexion waaw loolu mooy tax nag ñu bëri nag léegi du ñu ko xamee noonu dañuy de dañuy dañ may envoyé message defee ne ñoom dong ñoo ma message damaa war a tontu leen su ma leen tontuwul ñu mer léegi-léegi sax am na ñoo xam ne waaw maa ngi whatsapp bi ëpp na deux ans wax nañ ni muy doxee ku bëgg ñu arrêté li ñuy liggéey tontu la normal <laughs> dalay jaral nga dugal sa 1000 francs rek ñu arrêté xam ne lii jël nga koo séré tontu la waaye mënuñu nag comme nii lii jël nañ suñu temps dem koo jàngale suñu kéem lay kàttan ba mu leer su nit ñooy wëlbatiku nag seetaanul vidéo bi ginnaaw suba moom dollar bu rouge ñëw envoyé ma whatsapp ne ma dama am sama vidéo bu am réclamation nan laay def ma bëgg a jëlaat sama temps li ma répété ci vidéo yi ma répété waat ko ci whatsapp bi waaw kenn ku nekk nag <laughs> da nga koy jéem a xool sa bopp loolu day compliqué nag <laughs> voilà gars yi ñu koy xamee noonu ko voilà te loolu dafa am ku ma envoyé benn waay boo xam ni waaw ba may soog commencé euh, Galsen Tube bi la ma doon envoyé message gëjoon ko dégg mu woo ma woo jotuma après ma envoyé message di xultu quoi waaw ma woo jotuma nangam te ba may la commencé siiw dafa yàgg naa ma ne ko nag affaire yi day changé c'est ñun tamit il ñu jéem a dëpp di jamono bi nu muy doxe ba may soog a commencé ubbi seen YouTube bi. pratiquement mun naa koy suba ngoon ñaar wala ñett ñoo may envoyé message di ma laaj loolu pour nga tontu leen du nekk benn problème du la yàqal dara mais fur et à ñuy dem message yi di gën a bëri muy gën a compliqué léegi na ma na ma disponible woon ca moom jamono boobu mënatuma koo disponible ci moom loolu nag mu xaw koo metti waaw te te jéemul xam ni jamono day dox <laughs> booy def benn affaire tuuti leen di dina suivre mu dem ba yàgg ñu bari dina yaa xëy di temps ba nga doon am nag euh, tuuti nit yooyu nga leen di satisfaire ni ñu ko bëggee doo doo ko mën parce que mënoo doo ñi bàyyi ñi te mënoo satisfaire ñëpp waaw loolu ku ko def dañuy bañ daal jikko yor liy dal sondeel la ñuy bañ mu daal ñu voilà nekk di di di di wax nit ñi li ñu bëgg dégg di leen ko defal ni ñu ko bëggee ba lor suñu bopp lool tam waa du lu du taxul mu am njariñ ñu comprendre ko noonu kese bu ñu comprendre noonu waa dana woyof lu nekk rek da koy jéem a xool ci sa bopp bu mënoon a nekk dañ koy def su ma mënoon multiplier dix personnes dama koy def ki nekk ci ordinateur yi di liggéey normal kee nekk ci whatsapp bi kee nekk fee kee nekk fee bu ko defee ñëpp ma satisfaire leen waaye Euh, mënuma ko <laughs> benn doomu aadama donc laa ne mënuma loolu voilà ñu comprendre ko noonu te ñu nit dañu am suñu soxla de ci internet la liggéey di ko faj mun ñu bàyyi liggéey boobu ñuy faje suñu ay soxla si la ñuy joxe suñu dépense di ci fay suñu courant di suñu ndox di ci suñu connexion internet lool mënuñu ko bàyyi pour satisfaire ay nit ci whatsapp bi loolu tam yaa xay da mënul ne te te ma ko def nag vraiment bëgg lu neex nit ñi nag du tax ma koy def voilà waxtaan nag wax dëgg da cee baax kon waaw <laughs> maa loolu nag kii la woon précision la woon rek ñu leen jox rendez kon ba beneen vidéo incha allah rabbi jërë ngeen jëf.